arbitre bi sifflé na drapeau Assane Fall global Dextile Boy Zil écurie Fallaye Baldé Moussa Dioum 2 Jambar Wrestling Academy Moussa Dioum cokkaas na Boy daw na ñu xeex bëree jàppante nañu Moussa Dioum Boy caxabal caxabal caxabal caxabal caxabal laa daan na Moussa Dioum kaay Boy Jules daan na waay kaay Ibrahima kaay waay. yaay champion. yaay champion. façon bëre bi façon bëre bi may ko mu ñëw. sax may may ko mu wax

kañ dem si kaw kañ dem si kaw. sant yàlla baax a baax. waaw sant sëñ Touba rek bëgg sëñ Fallou. waaw sant sëñ Touba bëgg sëñ Fallou rek. façon bëre bi mu bëre. dafa bett ñu bari. nekkee xale bi mën na li. mën na lu ko raw xaarale ba si kanam rek. léegi gis nga loolu. mais diir bi diir bi du dër bi ndax ñoom suñu suñuy taalibe ñooy sëriñ yi. yéen sëriñ ñooy ñoo xam nañ loolu sax. dafa nekkoon combat boo xamante ne. Moussa Diouf moo fa daa a bëre man maa ko jàng maa ko xeli as tuut ko sama doom yàlla ko yàlla xare àjjana su foofu si kawam. kon looloo tax boo dajee ñoom muy métti. kii laa dajee sama xaw am yërmande kii comprendre comme Moussa Diouf la tur te Moussa Diouf dama ko bëgg sama xol loolu moo tax def ma dara gisoo lamb ji maa def teg maa mu doon keneen gësam naa bu yàng kon combat bi leer na ndax dafa nekkoon 4-4 parce que Pikine daan na yóbbu na ci 5-4. non ñii suñuy ba déwén. ba déwén nañu muñ ba déwén. Modou ba déwén rek. waaw la la. tuuti. Boy Jules waxul tuuti la ñaari paa. Hey, Boy Jules combat bi fi mu tolloon ñëwal ñu ci ni nga bëree Moussa Dioum ni mu nekkee ndaanaan mën a xeex mën a bëre ak façon bëre bi nga bëree moom ba daan dañoo pare li ñu war a pare rek entraînement la rek lépp loo gis entraînement la ak gars yi nekk sama ginnaaw ñaax ma damay santaat yàlla bu baax baax di wax jërëjëf Serigne Touba jël bi nga ko daan waaw jël la rek ci jël yëpp